opposition bi bu euh, buñ jàlluloon dañuy delluwaat uberkaay hmm. am na si ñu bëri actuellement buñ day di jëli ji wàllam loolu loolu yëpp ci Amadou Ba lay wàññeeku yokkul dara Amadou Ba hmm. day wàññeeku te dans une élection présidentielle oui. principe élémentaire de science politique oui. toute candidature est une remise en cause du candidat sortant toute candidature alors multiplier les remises en cause du candidat sortant oui. fatal pour le candidat sortant moo tax noonu la ko électeur yi déggee non noonu la noonu élection présidentielle noonu mm. lay demee mm. moo tax ma ne la mm. borom barrière yi ci cité kër góor gi devenu borom carte yi ci Cap Manuel il a les bonnes cartes ay as la téye borom avenue Roum moom ay naba la ay as la téye oui fii nga toog démb amoo woon yaakaar non ci Bassirou Diomaye ma maanaam maanaam lu jëm ci Pastef jëm ci justice. man duma ci am yaakaar ba ñu agréé. ba surprendre ma hmm. agréablement acte bii nag tey non. Euh, xam nga non euh, xa déjà am nañ volonté amoon nañ volonté bëgguñu woon joomaay jàll. mooy clé nga waxoon fanaan na ci ñoom bëgguñu woon joomaay jàll. non euh, fanaanoo <laughs> fanaanoo clé taxut a ubbi clé. <laughs> ak yàggaay bi aussi ah lu ñu wax ne. ndeket ndeket fanaanoo clé taxut a ubbi clé Ousmane dafa mel ni booy yi nga xamante ne dañuy yàgg nekk ci classe di tatone <laughs> devoir war na am wala examen war na am ci dix leçons ngay ji fii jaafaar ah. géographie bi. nga ne géographie naa jàng France. naa hmm. non non naa jàng Ziguinchor. mooy gën mooy génn bii mooy génn saa jàng Ziguinchor ba mokk récité ko récité ko ñoo ñu yóbbu la diaspora yóbbu la Chine yóbbu la États-Unis jëlee la fa yóbbu la Italie looloo xew. mais coow li bëri woon na de. par ñu taxaw mais Amadou Ba nee na peut-être dañu jaawaloon dossier. par kër ñu yóbbu la euh, diaspora bi tamit bi ngi ci. lool la bi ngi ci mi ngi ci ci la. Ah. ci la non. parce que euh, loolu lañ génn. xoolal gis nga euh, Pastef. gars yi ñoom ñoom ñi jàkkaarloog Pastef. Mm. xam nañ ne jàkkaarloo wuñ ak Naba. xam nañ ne jàkkaarloo wuñ ak Como. Mm-hmm. te comme euh, borom borom borom carte yi ca Cap Manuel. joxe na ay ay ay recommandations démb. ci biir recommandations yi nee na ñu déglu ko. xam na yooyu yëpp. parce que moom xam na carte yi mu téye yëpp waaw. xam na carte yi mu téye ah Jomaay Fay Jomaay mooy Sonko Sonko mooy Jomaay loolu moom ah. foog naa ne euh, boobu boobu boobu boobu euh, moom mooy kii bi gën a logique substitution bu gën a logique. transition bi gën a logique. Hmm. mais il a d'autres cartes. oui Cheikh Tidiane Dièye. Hmm. Déthié Fall. Habib Sy cest il a d'autres cartes. Ousmane est le du jeu. keneen ki yor na ay de mais cartes yi ay sept la ak ay. xam nga waaw non waaw waaw waaw bu la neexee yow mën nga jàpp euh, ne Amadou Ba duñu ay as euh, ci ci ci ci ci kii bi. Ah. donc euh, Diomaye jàll na loolu mooy logique. loolu lay moo logique ak lan moo non loolu non parce que euh, ja parrainage bi lan lay lan lay lan lay prouver sa représentativité Pastef est représentative ou pas bi ngay wax ne gars yi affaire bi yàgg na dafa mel ni ne Sénégal yépp moom moo téye woon soo suuf loolu c'est assez c'est assez illustrateur xam naa ni joxoon daa woote pour xam lan moo tax mu yàggoon lu ñu la joxoon comme raison non lu tax may xam xam nga man yàqamtiwu ma comme gars yi. ginnaaw bi Amadou Ba waxee. non non ne dañoo jaawale dossier yi loolu moom nu mu mën nekk. man booy man man du ma ànd ak yàqamti ci dara. Euh, te xam naa ne bon il ne faut pas faire euh, trois heures de temps là-bas donc euh, de toute façon dina ñëw hmm. donc ay yàqamteeg mais xam j'ai senti aussi que ni hmm. ndekete les pacifiens aussi sont très oui lu ko fi jar ah. no non non c'est-à-dire pare nga éventualité bàyyi ko ba mu dem ak éva ba mu andi euh, tactique am ci éventualité boobu nga koy daanee da amoon. ci diggante bi ñuy xaar léegi nii. tactique Ousmane Sonko nee na la pare na éventualité yëpp. kon kay moom pare woon na éventualité ñu baare Diomaye ci parrainage bi. pare pare woon na ko di. yow même yow sax nga waxoon. bu ko looloo gën a fës say bët. ci ñoom déet déet dafa nank ci ñoom seen bëgg-bëgg. waay paase paase samay bët de. Hmm. déedéet man li gën a fës samay bët. Hmm. mooy la représentativité de Diomaye fay est est est incontestable et indiscutable. zéro virgule six zéro virgule huit nga koy laaj Pastef loolu loolu loolu loolu mooy da nga da nga euh, jën ndax am nga ndox doo lay jën ndox di wala doo lay ndox jën hmm. bu mu ci mënti doon euh, jëlal mais euh, Pastef yor nga zéro virgule huit loolu du laaj d'accord léegi mais ñoom seen mbëbët nag seen mbëbët ak seen bëgg-bëgg moo doon bu mu jàll waaye jàll na alors fii jàll na moom moom Bassirou Diomaye fay parce que li ñu ko doon laaj mooy mu am lu mu mottali mottali na ko c'était de loi bois c'est c'est tout le contraire de Ousmane Sonko ci ay dossiers ci li nga xam te ne moom moo ko dindi. mais waaw waa li ma dégg li ma li ma dégg li ma dégg tey euh, maître Ciré door wax ci. justement reetaan lu na lool Pa Ousmane. lu tax ridicule na lool pour une euh, république comme Sénégal j'étais triste di di déglu maître Ciré Clédor ak euh, pansement bi mu ngi feebar. ñu ne la Sénégal danoo rejeter une candidature non pas juridiquement non pas juridiquement mais financièrement wax ji loolu la bëgg a wax c'est-à-dire bu ñu nee Ousmane Sonko euh, invalidé nañ ko ñu ne la lan mooy motif euh, invalide bi ñu ne la attestation caisse de dépôt et consignation c'est-à-dire l'élimination de Ousmane Sonko n'est même pas juridique. même bu fekkee ba tey conseil notifié wuñ leen ko. pour ñu xam réellement. ah mais non non non c'est le mandataire qui le dit donc c'est officiel laa wax peut-être buñ ko ko dañ ko ko wax verbalement mais amul luñ ko notifié et d'ailleurs. je pense que moom def na. cette précision mais mais mais mais mais mais xam nga boobu buñ ko ko notifié li sax dina ma jaaxal. Hmm. les paroles s'envolent le truc reste. justement ah loolu la ñuy daw ci document euh, yoo xamante ne dafa war a des ci archive bu Sénégal des siècles et des siècles ñu ji war ci génne benn en mille vingt-quatre ñu ne l'opposant politique Ousmane Sonko favori aux élections dont la popularité et indiscutable ñu ne lan moo ko taxee bokkoon 2024 ñu ne non pas juridique mais financier question d'attestation à la caisse de dépôt et consignation vous vous rendez compte ñoom pexe bu nekk def nañ ko juridiquement pour mën ko éliminer pexe bu ñu teg ñu ne leen du bii fu ñu jaar ñu ne leen fii la ak ay textes ak ay article mm. ak ay fait mm. ñu dem ba xam ne amatuñ fu ñu jaar ci côté boobu ñu tegee contumax na le tegee mambay ñaar na le euh, yéen doon wax yëpp dem nag ba caisse de déposer consignation sacrifier euh, le DG Sall man nañ ko non mais dañ koo yenn loo xamante ne duñ war koo nangu la CDC moom mooy élément bi empêché Ousmane ko mu bokk élection ak li ñu fi wax yëpp tout ce qu'on a développé sur la situation de contumace lépp lu ñu fi wax ci Sweet Beauté ak lépp li mu def ci réew mi lépp li mu teg ci réew mi ñoom dem nañ ba xam ne amatuñ bunt bu nu jaar fat fépp ni mu amee ci politique bi noonu la amee ci juridique bi fépp la gaay fatt argument bu ñu indi ñu andi leen contre argument avec des textes à l'appui ba finalement ba finalement fa ñu leen mujjee état ñu naan ko état respectel yoon état toppal yoon ñu bañ lank tëdd ci suuf ba yegg si ñu ne lii moo euh, tere bokk Ousmane Sonko. Mm. attestation de la caisse de dépôt et consignation. torop bu mag sax boo xamante ne dinañu topp c'est-à-dire les pages noires de l'histoire du Sénégal sont en train d'être écrites actuellement avec Ousmane Sonko. te lii ñu daj ci bind page yu noires yooyu noonu bu ñu ko dajoon ci Sénégal Sénégal jag waay. mais tout n'est pas pour Ousmane. bien sûr. comme dugal nañu inévi inévitablement. c'est-à-dire xoolal malgré lii yëpp malgré wax ji yëpp ba léegi ils n'ont pas encore gain de cause. d'accord mais Pa Moussa laataa maa ñëw ci recours bi nga wax ci Ousmane sonk dama bëggoon ñu taxaw ci jomaay bi mooy étape moom ak 21 yi nga xamante ni. jox ah, nañ leen <laughs> il faut il faut dire que parrainage lañ validé lañ doon càmbar di leen xool. waaw mais validé na yeneen étape yu des. waaw mais les questions de fonds xoolaat yeneen dossiers yi. lan la loolu. mooy mooy mooy yi ñu fi doon càmbar rek. mun nañ ci ah. ñëwaat benn par benn. waaw ñu taxaw ci. pour wanaat tamit ne. joomaa ah. it. Ah. moom wax dëgg yàlla. Hmm. amut lenn. lenn fenn lenn lañ mënoon a dugg. Hmm. mooy parrainage bii nii lañu mu doon ay porox ndoolu wax waxi caaxaan. kon au delà de parrainage. amatul dara amatul amatul. les neuf points sont là euh, en discuter les huit autres points. huit autres points au delà vingt un. Bassirou Diomaye Faye déclaration de candidature nee na lay accompagner un certificat de nationalité ja Diomaye est exclusivement de la nationalité sénégalaise nangu nga donc pré valide hmm. Diomaye euh, une photocopie légalisée de la carte nationale biométrique CEDEAO faisant office de carte électeur hmm. am na ko bu ko amul woon euh, neuf yi du mot. neuf du mot parce que neuf yi la ñu càmbar laata ñuy xool parrainage. kon bu ma sukkandikoo ci baajo Camara mi waxoon ni juróom-ñeent mi. kon carte a moo nga fa waaw un extrait d'acte de naissance datant de moins de six mois. oui euh, boobu it euh, c'est valide. waay bulletin numéro trois du casier judiciaire datant de moins de trois mois. boobu it. malgré qu'il est en prison benn benn benn condamnation. Bassirou Diomaye Faye. à un casier judiciaire vierge. comme Ousmane Sonko. Euh, une attestation par laquelle un parti. légalement constituée. Oui. Une coalition de partis légalement constituée par la euh, légalement oui. constituée, une euh, entité regroupant des personnes indépendantes mm-hmm. qui ont investi euh,